mais wax nga ko wax nga ko léegi en parlant de taxe gis nañu mission bu euh, fonds monétaire international bi nga xam ne euh, amal nañu ko fi indi euh, nañu nag un peu de contradiction par rapport ak annonce bi njiitu réew mi wax par rapport à ce budget là 2023 waaye daal dina dut baaraam baaraam ci li nga xam ne mooy subvention yi sur le carburant ñoom mm-hmm. nee nañu dafay dafay dafay diisal trop dafay peser trop ci budget bi te daf koy néewal doole foofu itam ak projection yi nga xam ne wax nga ko léegi mille milliards yi peut-être plus mhm. euh, alors qu'ils ont annoncé sept cent par an et cetera mhm. euh, loolu warul mën a nekk solution pour que ñu détaché wu un wala pour ñu am un peu d'autonomie vis-à-vis du du FMI non c'est-à-dire euh, ñun dañu opter même pas pour une politique d'endettement mais pour une politique de surendettement parce que la dette avoisine les treize milliards Il y a deux semaines, on a emprunté 3, 3 30, 30, milliards mm -hmm. dans le marché sous-régional. Sous nous donnons les coûts, euh, tu 12 000 et quelques finés. Donc, mm -hmm. on est environ à 13 000 milliards. Alors que Macky Sall Mignon, fait environ 2 700 milliards de, de dettes. Mm -hmm. Donc, l'eau surendettement. Il y a une fatigue en décembre 2018. Euh, L'actuel Premier ministre Amourba demande un groupe consultatif de Paris. Donne 3 milliards. ñu lebal ko far sept mille quatre cent trente sept milliards. le club de Paris. Le, non le c'est c'est le groupe consultatif. c'est différent du club de Paris c'est deux structures. plus plus le club de Paris. plus des eurobonds parce que après dañ ko joxoon mille deux cent milliards eurobonds. Mm-hmm. yooyu yëpp c'est des politiques d'endettement qui ne reposent que sur la garantie de nos ressources naturelles. mais yoo xam ne jot nañ ci am ñu ci réaliser quand même wala. lañ ci réaliser. ces infrastructures là. lesquelles il faut les bon, les, les routes, il y a les routes. Euh, c'est bon. Le terre. Le terre, c'est une mauvaise option. Le stade Diamniadio. C'est une mauvaise option. Euh, les, en En matière, c'est une mauvaise option. C'est-à-dire, prendre ta tablette, mm -hmm. c'est de les 43 milliards en transfert d'argent, mm -hmm. c'est du gâchis budgétaire et c'est de la corruption. Parce que c'est à l'endroit de ta clientèle politique. Un État sérieux ne fonctionne pas. 43 milliards nga toog nii séddale ko nii ay nit ay nit yow amoo ci de man awma ci mais ñan ñoo ci am certainement seeni nit dañ ci am. mais ñi néew doole peut néew doole mais ñëpp a néew doole Sénégal ñëpp a ñëpp a néew doole Sénégal donc loolu ay politique populiste la. ay mm-hmm. ay politique clientéliste la ay gâchis même le nouveau budget bi ñuy wax on dit presque la moitié 43 pour cent va être réservé au social c'est pas sérieux c'est pas sérieux. Pourquoi cette politique d'assistanat Pourquoi ne pas créer des entrepreneurs Peut-être on Pour... est à la veille de, de la présidentielle. Mais, en 2018, mais, mais c'est même ça pas peut-être, on y est. Donc, mon oui. c'est du clientélisme. Mm -hmm. C'est de la corruption. On ne peut pas prendre, et ils annoncent 43%, mais ils sont capables de prendre la moitié de notre budget pour campagner, pour politiquer, pour nerf les militants, pour financer les projets de développement sous le manteau du social. Donc, loolu n'est pas une bonne option. Mais pour revenir à la question sur euh, euh de la Banque mondiale mm-hmm. par rapport à nos orientations budgétaires euh, par rapport à la subvention, parce que ñoom nous sommes les appelés. Nous sommes les Macky Sall. mooy Sall n'a pas besoin de subventionner les hydrocarbures parce qu'il a déjà mis 65% de taxes dix mille gasoil euh, wala essence boo jënd. six mille cinq cent yi taxe la. pour dix mille. c' est soixante cinq mille dix mille six mille cinq cent yëpp taxe la c' est soixante cinq pour cent de taxe boo xoolee la structure du prix. Mhm. ça je dois on doit faire l' effort tous les deux de publier la structure de prix des hydrocarbures. ñu xam ñu xam lan moo ci euh, njëg li dëgg dëgg dëgg ak lan moo ci taxe kon tey jii président Macky Sall bu bu bu bëggoon. Hmm. parce que loolu banque mondiale xam na ko. carburant wàññeeku au lieu muy subventionné day def renonciation fiscale. bu bu bàyyee 30 pour cent de ses taxes. moo gën muy muy justifier benn 300 milliards bu muy génnee ni et ci hydrocarbure la koy def d'autant plus que euh, le Sénégal a tout fait pour être classé pays pauvre très endetté. Mm-hmm. donc position euh, FMI baal ma ci euh, dagg bi position FMI donc ça se justifie. ça se justifie pour qui connaît. lu baax ci Sénégal la n'est-ce pas non. non euh, FMI dafa ne. oui président Macky Sall warul subventionner hydrocarbures parce que loolu de alourdir budget bi. mais mën na wàññi taxes yi. non Banque mondiale waxul loolu. oui par rapport à mais loolu parce que levier bi ñu war a utiliser. mooy renonciation fiscale mooy wàññi taxi yi. cinq pour cent dafa ëpp na ci wàññi 30 pour cent. 65 boo ci wàññee 30 il reste quoi il reste quand même euh, cinq pour cent de taxe c'est tenable donc ça veut dire que 10 mille bi ngay jënd carburant taxe bi nekk cinq mille 000 euh, mille cinq cent plutôt. léegi taxe bi day nekk quatre mille cinq cent. donc soixante cinq moins trente cinq c' est moins trente ça fait trente cinq pour cent. Euh, quarante cinq pour cent quarante cinq. Euh, euh, non trente cinq trente cinq pour moi. day gën yomb. Mhm. day day day nekk trois mille cinq cent au lieu de six mille cinq cent. c' est une diminution de presque de moitié. Mhm. mais loolu mais waa Banque mondiale xam nañ ko mais ñun ñi nga xam ni on n'a pas la gestion du pays. Macky al nous dit je vais prendre 300 milliards pour mettre dans le carburant. Alors qu'il prend 65% de taxes dans ce carburant. Donc ça veut dire qu'il prend 65% plus nos 300 milliards pour le def ko ci te banque mondiale moo leen di financé day ni non non non lii d'accord uñu foofu la il faut être initié pour nga xam fi banque mondiale di waxee. parce que dafa am beneen aussi instrument boo xam ne. Euh, banque mondiale moo ñu koy baaxee. parce que maa la naan Sénégal dafa xeex pour nekk pays pauvre très endetté dafa def tout pour ñu classer ko ci pays pauvre très endetté. à quelle parce que pays pauvre très endetté yi dañuy am ay subventions ak ay aides budgétaires yu ñu leen di allouer euh, loolu c' est le travail de Abdoulaye Matar Diop auprès de Abdou Diouf mm-hmm. alors qu'il n'était ministre ni rien du tout il a conseillé dafa conseillé Abdou Diouf pour Sénégal génn ci PMA ñun PMA la ñu woon pays mooy avancé mm-hmm. mu ñun nañu def tout pour ñu classer ñu pays pauvre très endetté ci la ay DSRP ñëw DSPR 1 DSPR DSRP 2 document stratégique de réduction de la pauvreté. Mm-hmm. xam nga ay politique de réduction même pas d'éradication mais de réduction seulement de la pauvreté pour maintenir la pauvreté xam nga donc PPTE boo nekkee euh, pays pauvre très endetté sa facture euh, énergétique dañ koy subventionné de cinquante pour cent. maanaam booy importer euh, pétrole ak gaz bu waree jar cent dollars yow cinquante dollars ngay fay donc facture pétrolière u Sénégal bu waree nekk quatre cent milliards Sénégal deux cent milliards yi lay loolu Banque mondiale xam na ko parce que moom moo koy subventionné Sénégal sa sachants m'écoutent donc léegi bu ñu subventionné de moitié c'est-à-dire sur quatre cent milliards de facture pétrolière on paye deux cent milliards loolu c'était pour ñu répercuter ko aux consommateurs mais on ne réper on n'a jamais répercuté ça aux consommateurs depuis Abdou Diouf benn man la boo xam ne gars yi ñoo koy séddoo Senelec da ciy am RTS da ciy am même le soleil da ciy am des gens dans la des généraux dañ ciy am des gens en dehors de l'appareil d'État dañ ciy am lu ñuy séddoo la ba noppi li ñu dugal ñu teg ci ay tax léegi banque mondiale du nangu ñu teg ay taxes ci loolu ba pare ba noppi jël ci budget bi nga xam ne moom da koy soutenir di ci jël trois cent milliards prétextant ni ci euh, euh, carburant la koy dugal te courant yokku na te yëguñu ko mm-hmm. parce que ku jënd cinq mille la nga daan am amatoo ko xam nga donc ñoom mm-hmm. li ñuy jox fii ñu ngi koy jël ci beneen loxo mais banque mondiale day gis ñun la ñu mën a nax mais ñoom mënuñu nax banque mondiale donc loolu mooy problème bi te en dehors de subvention PPTE boobu ci ci ci ci hydrocarbures yi ci nomenclature nomenclature budgétaire bi toujours day am benn rubrique euh, apport PPTE hmm. day am benn rubrique boo xam ne ay milliards yoo xam ne PPTE moo ko moo ko defal Sénégal comme appui budgétaire euh, pour jàppale ko ci budget donc instrument boobu